assainissement bi xam nga bu ñuy li ñuy toujours li ñuy rey mooy da gis kenn koo xam ne benn promoteur wax xam day ñëw defar cité rek du def assainissement day ñëw parce que aussi kër nit ñu bëri la ñu bëgg am kër ba bu ñu ne la kër rek da ngay dem def euh, da ngay ñëw rek nga jënd terrain bi commencé tabax alors que li war a jiitu mooy assainissement waaw bu ñu amee assainissement ñu bëri nag dañuy fekk terrain boo xam dañ ko rembale alors que terrain yooyu ay séyaan la woon te ndox du bàyyi yoonam donc bu demee nag ba dëkk nag. ba taw bi kii ndox mi amatul fu mu jaar taw bi ñëw remonté nab bi yéeg day dem ba si biir nag day dugg si biir foos yi nga xam ne da gis koo xam ne dafa lay wax mankat kat démb laa vidé mais sama foos feesaan na keneen na la man bi ma vidé yàggul mais sama foos feesaan loolu li koy indi yëpp mooy dafa am foo xam ne dañ fa war a def assainissement bala ñu koy moo tax dañ dañu war a imposer même promoteur yi koo xam ne dañ nga war a jaay kër bala nga koy jaay nga defar voirie yi defar assainissement yi defar lépp ba pare nit ñi doog fa dëkk tant que defuñu loolu problème yu mel nii dañ koy am